asalaamaaleykum ma ngi ziar ma ngi ziar téré pour def live di ziar di de di nuyu di ziar de di nuyu mbokk yi de xel télé ci poste sa Abdou Karim frère activiste membre du mouvement de Dëgg valeur alors téré dama dama ñëw pour pour pour waxtaan quoi amna nak live dina xaw guddu de parce que ci patriotisme waxtaan avec la jeunesse sénégalaise ñun suñu borom yi suñu yi wax ak euh, suñu mbokk yi nga xam de ñi ci euh, nga xam ni yombul dafa metti yombul wax ci jaar-jaar bi tuuti indiwaat xam nga parce que jamono bu nekk day am ñoo xam dañuy dabe ci xeex bi dañuy dañuy fekk si ci combat yi alors day bari yu bari yoo xam ñoom di nga ko di nga koy di nga koy mën a comprendre day metti si ñoom quoi day day xaw a compliqué si ñoom maa ngi ziar ñëpp di béggee ñëpp euh, di ñaan yàlla bi ñu fox li ñuy xebe alors damay commencer d' abord si si si si man d' abord quoi si li nga xamante ni nekk naa rappeur bon maa ngi koy rappeur maa ngi ko nekk les années 97 80 16 97 laa commencé rabantu di foo ànd ak sama cousin ñuy rab nekk Parcelles Assainies créer groupe tuddee ko khalima ji dama bëgg wax rek tuuti pour gars am aperçu ci patriotisme bi ak lam mo ngi def ba tey ñu ak ci fii nii ak xex bi lam moo tax ñu taxaw ci ak lu tax ñu ko jëndé dara quoi c'est très important pour gars yi di ko xam parce que bëri na ñoo xamante ni ñoom lañ la xam amna ño ñoo xam ne ñoom 6 mois lañ la xam amna ño ñoo xam après bi ma lañ ma xam am na ñoo xam ne xamoon nañu bien avant nag mais xam nga loolu aussi day baax souvent di indiwaat mémoire di indiwaat réfléchiwaat mémoire di waxtaan ak gars yi Omar Ndoye siyaar bu baax a baax baax Omar Ndoye dafa ragal jabar ji Omar Ndoye maa ngi siyaar am bëggee waa Maroc yëpp alors benn parenthèse bu ndaw pour wax ni euh, Sénégalais yi nekk Maroc ñu ngi woote di ñaxtu ne dañ leen waxoon ne leen mën nañ ñëw ñoom ñu jëlee seen xaalis pare yor seen i passeport et tout ñu recensé leen ñu dem ba ci frontière bi ñu téye leen fa te dañu bëgg ñëw Sénégal ah Sénégal ñu téye leen ne duñ jàll kenn faale leen bàyyi leen dajale leen foofu ëpp na ñoom nañ bor te ay oto lañ bëggoon jël quoi kii bi lañ bëggoon jël yoonu suuf bi si oto yooyu donc alors ñi nga am jafe-jafe ñëw ñi ngi koy ñaxtu Sénégal yi nekk Maroc ñoo am jafe-jafe yu méttee métti foofu noonu donc na ko gars yi bàyyi xel plus de 200 Sénégalais ñi ngi ci frontière wu euh, ñi ngi ci en fait ñi ngi ci suuf bi quoi donc pour ñëw maa ngi jégalu la xalé mom moom xale <laughs> yi moom affaire la ñoom ci bokké da ngay reeb tas quoi donc alors sénégalais yi ñi nga am jafé jafé ñi ngi am ay jafé jafé biir Maroc quoi alors damay damay ñëw si li nga xamante mom moy euh, moy moy patriotisme en réalité ñun fiñu jaar xex bi liñ ci dacc fiñu dugg yëpp li mu demee ak lu tax ñu wara taxaw ko di diko xex ak njëriñ bi lan la d'abord li jiitu ci xex bi moy moy yombul quoi c'est pas facile parce que lu tax yombul moy sénégalais mo gawul gëm ni nit dina xex te yalla rek tax

nek di rap nek nek jeune nek di rap nek ci groupe groupe de rap bi diaré fo dem nek ci xalima ji jóge Parcelles Assainies nek di rap ñun rap engagé lañ doon def alors jaar nañ ci yu bari bari ci xex bi def ay sound bataille bo seetee xexu góor jigéen bi ni man ma ngi fàttaliku bi may def bi may bi may def sound di tudd ben tour animateur bu mag bu nek Sénégal nan bu ko kenn jox sama CD parce que dañ koy diñ pédé bu ben sound bi tudd Big Rouge ñuy suivre hip hop xam nañ ko lu sound bo motax tax Sénégal yi rappeurs yu bari xam ma moo tax Sénégal yu bëri xam ndax clash la woon dafa clash hip hop garçon ma doon clash di clash ça à dire pour wax ni xeexu nguur jigéen dafa yàgg du tey alors donc lolu dafa nek mbir engagement bo xamanteni manam maanaam dund nañ ci lu nek naxé nañu lu nek daj nañ ci lu nek clashé nañ ñu fu nek toroxel nañ lu nek lu nek gis nañ ko xex nañ ci jàppante ci man sama premier album mi ngi génn en 2004 li ma waroon génne album Futur Souleymane Faye maa ngi ko waroon génne en 2001 album bi avorté ma dem ba 2004 soo koy génnee soo koy génnee sama premier album tout le Masro beaucoup, alors baa tout le cadre du njëkk après ñuy dox di dox di dox di dox di dox 2000 encore 2012 la génne deuxième album degré fait que c'est ñu Ukraine masque beaucoup, fekk Masro mi ngi fa woon dëgër yi ñu masque Masro Boutou bi ñu adhéré à a adhéré en 2011 donc loolu pour wax ni xeex bi amul fuñ ci dajul amul luñ ci dajul doon nañ def ay manifestation ay ay manifestation di dox di dem tuuru Sénégal en ak Y'en a marre di sensibiliser Sénégalais yi gëm ni xeex bi luy luy jëriñ Sénégalais yi da quoi ak luy le Sénégal yëpp te lu jëriñ Sénégal jëriñu ñun ñëpp ci loolu lañ mosoon nekk

invité naa ay professeur Tonkara invité naa ay invité naa amul kuma ma invité wul ay Bamba Ndiaye yal nako yalla yeureum yërëm invité naa euh, commissaire Kayta invité naa Yana Mar invité naa invité naa ay euh, frère imam Ndaw yi bi imam Ndaw les jeunes de Colobane si que man amul kuma ma invité ci radio bi te li lañ doon def débat dañ doon def à partir de 10 h l'émission bi di commencé dañuy wax ba une du matin di waxtane Sénégal di waxtane jafe-jafe yi Sénégal yi juddu di waxtane ne invité naa ak grand Alioune Ndiaye de bureau grand rendez-vous te mu nek léegi RTS 1 invité naa ku nekk boo leen demee ngeen tapé si sama chaîne YouTube Abdou Karim Gueye émission rajo di ngeen gis émission Top FM di ngeen gis émission yu bari dama ko doon def si live sax di ko dugal ci di ko dugal ci Facebook c'est-à-dire pour wax ni combat bi en fait du combat wu tey mais xam nga dafa am ñetti sénégalais dafa am sénégalais yi nga xamante ni moom la chaque fois man yaayam jawaram ak i doomam ku am jom la seen waa kër ak ay mbokkam dañ koo ñor day ñafe day góorgóor lu mu am da koy toppatoo ay frèram toppatoo ay séeram toppatoo këram kooku sénégalais bu baax la mais ci ñooñ la yem am sénégalais boo xam ni moom boole na loolu yaayam jabaram frèram ak ay séeram mais da cee boole dëkkandoo ak ay promotionnel ku mu xam rek dalay taxaw kooku ku baax mais am sénégalais boo xam ne moom Sénégal moo ko ñor ak képp ku nekk Sénégal loolu nag la tubaab bi di wax patriote baatu patriote boobu nag boobu léegi ñun moom la ñuy jéem a travailler di ko ñafe pour mu nekk si ñun léegi nag yoon bi dafa nekk yoon boo xam ne dafa metti ba pare dëgër ba pare diis lu nekk moo lay dogaale si yoon bi gàllankoor bu nekk dalay fekk si nit ku nekk dalay fekk si yoon ñu dañuy ñëw parce que dañuy jàpp ne da nga am ñi ko en ñi dañuy ñëw jàpp ne affaire bi utukaayu xaalis la ñi dañuy ñëw jàpp dañuy war a ñëw pour xamal la dara pour téye la ci point comme ça comme ça suba lu ñu bëgg ci am mun ko am ñi dañuy ñëw après ku ci ñëw rek day gis ni rek yow en yow yow fam leneen loo gis sa kanam mooy li nga xam ne mooy xeex bi quoi mooy njëriñu Sénégal mooy jaamu yàlla bi quoi nga xam ni fi sabilillah bi xeex bi après dem nañ bàyyi ñu ñu ci bëri bëri ñëw nañu toog am ñoo xam dañoo dem am na relation yoo xam ne yàqu na ko lu ne dund nañ ko si xeex bi nii te terewul ba tey ñu nekk si xeex bi di ci dëgër rek donc kon yaakaar naa ni am na foo ci xel day bax ñu échanger ñu amna expérience tamit quoi parce que man boo seetee 2012 2011 laa nekk la commencé def activisme 2011 ba 2011 2000 2021 def na 10 ans kon am lo def 10 ans old school nga si kon man warna naa warna a am expérience bo xam warna war partager ak la jeunesse sénégalaise ak ñi nga xamni ñi ngi bàyyi xel ñoo xam peut-être dañoo dabé ci xex bi ak ñoo xamni bëgg nañ ñoo xam ne bëgg nañ aussi tamit ñun ñu ñu échanger ak ñoom wala ne am na lu ñu xam ci xeex bi am na lu ñu comprendre ci xeex Sénégal depuis 1960 ba léegi Sénégal ñu ngi dund ay jafe-jafe yoo xam ni dara changé wu ci chaque jour répétition lay nekk maanaam jàng Sénégal muccul ay ba léegi boo demee si baal bi da nga fekk ay écoles yoo xamante day taa ndox xale yi duñ jàng day taa ba léegi dañuy gis ay élèves yoo xamante dañu leen di bëmax rek bu ñuy jàng école primaire lañ leen di bëmax sixième primaire ba CM2 duñu mën sax bind seen tur ba léegi dañuy gis ay école yoo xam si baale bi fii nii ah ay professeurs yoo xamante ni yàlla xam na ko xoolal dañ lay wax ni la xale yi fañ doon taa ndox ba tey dafay taa ecole bi ci ginnaaw yëpp ndox lay nekk mbalit te pourtant ba léegi yaa ngi gis ay robinet mbedd keroog maa ngi koy expliqué ay robinet mbedd yoo xam suñu yaay dañuy root ay ndox dañuy ay fukki dërëm pan juróomi dërëm dix francs dërëm depuis jamonoy Senghor ba léegi ñu ngi jaay robinet mbedd ba léegi yaa ngi gis ay bërëb yoo xam ne amuñu amuñu poste de santé amuñu ambulance amuñu safam ñu doy

ba tey ñu ngi taxaw di ñu làkk ay français soxo soxo sur costume tàngaay bi taxaw di ñu làkk ay tubaab yoo xam ni tubaab yi ñoom seen jëm bopp sax bu ñu ko déggee définition bi sax day des si ñoom ba tey mënuñ la traduire dëggantaan ñoom sax lan loi lañ war a tënku pour yor Sénégal yorin bi nga xam ne kenn xamul lan maa ngi ko wax keroog ma ni fleuve Sénégal 800 kilomètres ak lu tegal la fleuve bi ndox mi ci géej gi rek la koy sotti ci géej gi rek la koy comme si ñun Sénégal ay dof a élire quoi comme ñun ay dof lañ fal ku ci gis pour moom politique égal lac français mën wax ñu wax an pour ñu problème mu faju problème mbay problème jang jàng ki toog jàkkaarloo ñun mom il mu war ñu naka lañuy ñuy fajoo war ñu yoonu émergence war ñu éferu naka lañuy def ba dëkk duñu am jafé jafé ndox nak la def ba ndox mu neex mi yegg Kaolack yegg Touba nak la def di xalat mais non non ñom ñu ñuy war ni dégg nañu tubaab dañu war ni ñom am dañu am verbe dañu war ni ñoom dañoo mën a sensé dañu war di parce que parce que Sénégal yëpp kenn ku nekk mi ngi xalat sama yaay sama jabar sama dom tabax étage bu rafet tukki dem outil ñi nga xam ne jotuñu am accès lolu loolu ñoom ngi daw bàyyi fi Sénégal daw di outil lu ñu am ñëpp koo ci gis mi ngi daw di outil mu am mi ngi dem dugg ci gal yi wala dajé la xaalisam dugg ci avion yi bu ci Maroc lolu ma maa ngi gis Guinchess complexe bu bon bi di wane maa ngi England maa ngi Angleterre di selfie quoi di wone Angleterre di wone ay jeunes butéel yu ñàkk fayda quoi. yooyu nga xam ne mooy pousser jeunesse Sénégal ñu jàpp ni dem Angleterre mooy tax tedd nga am nga teranga moo yooyu nga xam mooy ñu dugg ci gaal du ñu am dara moo tax ñu xeeb suñu Sénégal dafa Sénégal dafa xeeb suufam Sénégal dafa xeeb làkkam Sénégal dafa xeeb dafa xeeb dëkkam mooy suufam Sénégal dafa xeeb yéreem Sénégal dafa xeeb léppam sénégalais du làkk olof du làkk tukulóor sénégalais pour moom bu gën a dégg tubaab ci lañ koy respecté sénégalais bu amul que loolu moom en réalité parce que moo tax dañuy gis sa kër amuñu benn ñi nga xam ne amuñu xaalis ñu am jabar respecté wuñ ñu ñu bu ñu amul ñu ne sunu yaay moo baaxul ñu ñuy saaga mooy tax sunu frère yi ci lekk la ñuy dugg léegi nag loolu moo tax après ñu am am complexe nit ku am nu mu amee baax na su ñëwee rek nu ñuy def mooy na fexe ba na nañu teral rek nañu jox rek ñu dem idéologie yooyu ñuy demee ñun ñëpp nekkuñu ay nit yu dénc suñu bopp yooyu yëpp li ko waral mooy base bi daf ñu rëcc mooy diine bi parce que diine bi mooy tax nga ragal nga ragal a lekk lu lewul nga ragal a fen nga ragal a njaaloo parce que loolu bu nekkoon ci tey suñu homme politique rek ñun ñu am loo xamante ni kenn du ko sàggane kenn du ko foofu te loolu ab basage dañ ko war a jàngal xale yi donc soo gisee ñuy expliquer lii yëpp dafa yàgg te tey te lu nekk ñëw na fi sama kër gii nii sama néeg bi sama appartement bi ma nekk nii politicien politicien bu nekk ñëw na fi appel bu nekk jot naa ko ku nekk ñëw na fi ñun suñu ngor bu ñu ko jaayul boobu ba léegi man gëwoon mën nañ ko jaayati quoi lu nekk daj nañ ko feebar nañ fi tëdd problème bu nekk am nañ ko jafe-jafe bu nekk am nañ ko ay arrière rek ay problème mu loyer ku nekk dañ koy am mais yàlla fi ñuy suturaal saa su nekk ñuy ñàkka ñàkkante di ñafe di job ci ñàkk suñu xaalis di góorgóorlu ak peu yi ñuy jàppale ñu ànd di ñafe di yor suñu bopp di góorgóorlu di ko boolee xeex bu méttee méttee métti nga xam ni foo liggéey signé fa contrat ñaar ñetti weer état bi fexe ba yaaxal la ko foo dem nekk fa chroniqueur wax ñaari yoon dëgg ñetti yoon dëgg état bi fexe ba yaaxal la ko wala kooku dem di gis ci boppam sénégalais buy ànd ak yow moom day bëgg ànd ak yow ci si dama ko defal naa la quoi kon yow dama ma war a redevable day ànd ak yow si damay ànd ak moom pour suba su ma defee njombe après léegi du ma mën a wax dëgg sénégalais bu lay defal da lay defal pour bu la defalee pour yow suba moom bu defee nag sul noonu doog ko wax te la lay defal te ñaanoo ko ko laajoo ko ko muy ñëw fekk la nga toog mu ne ah man de gis naa yaa ngi xeex man yéene naa la seet bi wala yéene naa la lii maa ko teg sa loxo mu ne yéene na loolu teg ko sa loxo jox la ko ba noppi après bëgg ci bëgg la ci takk bu mu ci bat maanaam li ñaan Sénégal da lay may 50 000 bëgg laa pes pes muy jar 75 000 francs te ñun du ñu nangu yooyu parce que ñun dañoo gëm suñu bopp te ñun dañoo gëm nii lu ñëw yàlla moo ko indi mais dignement bëgguñu lu alalul jàmbur bëgguñu lu lewul te lu ñu am dañ ko am dignement ci fulla ak fayda ci ngor ñaanuñu kenn mais ku ci am sa yéene ne lii dañ koy yëg ci teg ko suñu ñu jël ko ci dignité ak ngëm te boñ ci dara yëpp ñu delloo ko te ni amul lenn loo xam ne taxaw nañ ko mu jaral ñu échanger ñun jaay ñu suñu ngor ndax oto jaay ñu suñu ngor ndax kër jaay suñu ngor ndax xaalis jaay suñu ngor ndax dara lépp ñu ngi resté digne ku ne xam nga ni tey bu ñu bëggoon am na lu bare bëri yoo xam suñ ko bëggoon am nañ ko ñun jomm nañu ñu xool Sénégal yi ci bët am loo xam ne amewuñ ko dignement ñu jomm nañu gis loo xam ne jar na xeexal Sénégal ñu koy monee ñun Sénégal duñ ko monee xeex dëgg bi ñuy xeexal yàlla ñu ko monee parce que yàlla payoor bi dëggantaan yàlla moo ko yor te dama gis ah ay l'autre jour dama ko wax sama benn copain quoi muy expliqué mu ne ma Tunkara professeur Tunkara bi nekk 2S benn anecdote la rek mu ne copain mu ne ma en fait Tunkara Karim il faut ngeen comprendre parce que dafa yaakaaroon Sénégalais yi di xeex pour Sénégal mais bi muy xeex pour mu ñafe di ñafe di xeex di ñafe pour Sénégal dafay émission mais mu dem ba si biir après mu gis ni Sénégalais yi au fait fekk si wuñ ko si xeex bi quoi. bi mu demee mu dem élection euh, législative pour ñu def ko député ñëpp xam nañu Tounkara nit ku positif la woon ku gëmal li muy xam pour mu nekk député Sénégalais yi seetaan ko nekkul député loolu la meree Sénégalais yi moo tax mu wan leen ginnaaw. ma ne copain bi waa d' accord Tounkara dëgg la jàmbaar la woon bu fekkee da doon xëy te yàlla keroog rek warul jàpp Sénégalais yi ñun booy def bul def te tax nit wor. day yak dar day sos ken du yaakaar nit boo yakar yaakaaral yalla sénégalais bo len yakaré ngay xex pour ñom di nga bàyyi xex xam lu tax parce que ñom ñi ngay xexal ñoo lay xeex te même ñi nga andal sax ñu ne dañu la bëgg sax dañuy ya xam di nga def ben erreur bu ndaw pour ñala nga mu ci quoi parce que ku nekk pour mom bo yëgul sa morom nak do nekk ku nekk yaa ngi bëgg wan ni nekk nga am ci ben côté bo xam ne ñom ñoom dañoo bëgg pour wan ñi Karim Gueye mi ni limuy xex mën ta nekk manam nit dëgg fa la ñom li ñuy xex mën ta nekk baax mënul nekk nit mënul baax mënoo fi nekk di xeex te doo lekk lu lewul dañ naan mënul ne xaalis li ngay lekk lu lewul la mënul nekk lu lewul mënoo fi nekk di xeex état di la proposé ah am na lu nekk ci suuf booy xeex rek am na ku lay ku lay dimbal am na ñu lay nekk ci suuf di la wax xeexal c'est que Sénégal dafa am ñoo xam ne ñoom ñoom dañoo jàpp ni loolu mënul nekk parce que ñoom mënuñ ko parce que ñoom dañu jàpp ni xeex te yàlla tax amul si am na kay am na ay suma leen li ma li fi ñëw ci politicien sama kër gi toog sama appartement bi proposé xaalis génnee xaalis joxe wax lu nekk ne dañoo bëgg nangam nangam ñaata politicien yu mag yu ñëpp xam après dañuy mujj ñibbi ndànk bu ñu wootee ñaari ñetti yoon téléphone après dañuy mujj toog seen kër xam ne am na ñoom ñoom ñaata yoon ñaata nit ñoo jógee fu nekk ñaata proposition lu nekk ay oto lu nekk mais ba léegi ñu ngi resté digne am na suñu ngëm am na suñu njub di xeex te yàlla tax te man dama wax ni lu ñuy xeex dañ koy yàlla tax te buy xeex te yàlla tax dafa nekk loo xam dafa doy parce que yàlla mi ngay xeexal dafa lay nattu di essayer di xool di la peser di natt nattu mi ngi jóge ci natt di xool ndax li ngay xeex dëgg la ci yow di xeex ndax yow pare nga ndax pare nga si engagement bi nga jël ndax li ngay wax ne yàlla moo tax ngay def loolu yëpp na dafa bëri ay prox ndoll yoo xam dala koy nattoo quoi pour jaare fa nag pour peser la pour xool ndax pare nga moo tax yombul yombul te xeex yëpp xeexal sénégalais moo ci gën a metti lu tax su nee xeexal sénégalais moo ci gën a metti tey live bi dina xaw a gudd ah parce que damay waxtaan rek damay waxtaan ak gars yi quoi waxtaan ak jeunesse sénégalaise bi wax leen ci patriotisme wax leen ne Sénégal fii réew buy naat la te dañuy réussir xeex bi te dinañ ko réussir te damay wax ni Sénégal yi ci ñun ngeen gisee lu ngeen musul gis ñun waa Nittu Dëgg Valeurs ci ñun ngeen gisee ñuy xeex ñoo xam duñ jaay seen ngor duñ ko monee ñuy xeex te yàlla rek tax ñuy xeex te xeex bi duñ ko utuñ ci dara lu dul yàlla désintéressement total di ngeen ko gis ci ñun te incha allahu rabi yàlla mi ñuy suturaal te ba léegi ci lool la nekk te duñ ci dañ te dara dara dara ci àdduna du tax ñu dellu ginnaaw c'est très important te loolu dafa jar bàyyi xel menace bu nekk jot nañ ko fitna bu nekk jot nañ ko problème bu nekk jot nañ ko lu nekk daj nañ ko mais dañuy gën a dëgër gën a taxaw ci xeex bi ngir jàkkaarloo ak yéen pour xeex dëgg xeexal dëgg Sénégal te lu mën nekk la parce que fekkoon nañ fi mouvement yu nekk amoon na ay yu dul jeex mais ñun ñu ñëw tànn nitu dëgg dëgg nag dafa am lu mu ëmb quoi dafa jafe parce que dëgg bi même yow soo koy wax mu lay gaañ yow sax da nga koy wax parce loolu mooy nitu dëgg donc kon man dama jàpp ni jot na Sénégalais yi comprendre bu baax a baax a baax lan mooy idéologie xeex bi quoi principe bi lan la ak ñuy adhéré ci xeex bi yëpp xam njëriñu xeex bi lan parce que amul xool leen bu baax a baax ñan ñoo jàkkaarloog ñun dañuy jéem a décrédibiliser ñan ñoo jàkkaarloog ñun bëgg ñu kutoo ku taqal wala bëgg yàq suñu xeex wala bëgg ñu baax ñan la mooy ñi nga xam ne ñoom dañoo jàpp ni war nañu mën a bàyyi góor jigéen ñuy lambar lambar ci ñi nga xam ne dañoo jàpp ni war nañ mën a war nañ mën a ànd ñun ñëpp dëgëral dañoo jàpp ni instant yi nii Sénégal maanaam par exemple Sénégal dañ ko war a foowee Sénégal dafa war a nekk benn xale bu jigéen boo xam ne ku ñëw fooyee ko dem Sénégal dañu war a topp ci politiciens que xaalis moo tax ñu lañuy Sénégal dañu war a dañu war a fexe ba ku nekk noo amee rek baax na Sénégal da nga war a toog ci télé yi rek wan leen dégg nga tubaab sol costume soxo soxo xam nga ñu fexe ba jege politicien bi dajale quelque nit ci koñ bi ñu lay jox xaalisu koñ bi xaalis bi nga dajale gars yi nax leen jënd sa oto jaar nii dem sa yoon jàpp suñu yaay di leen nax jàpp suñu sëriñ di leen nax boobu fekk na boo demee université sax xol day jeex tàkk boobu fekk na boo duggee Dantec sa xol jeex tàkk ngay toog di gis ay xale yu ndaw yoo xam dañuy feebar yàlla xam na ko seen ay feebar yoo xam ñu leen ñu ci hôpitaux di leen dàq Dantec ñu dàq leen génne leen ci hôpitaux dàq leen donc yooyu nak ay mbir yoo xamante ni ñun dañu am conscience quoi dañu am conscience diko sooral nak ci xex bi bu baax a ba di bàyyi xel nak xam nga di di bàyyi xel bu baax a nak nag jëm parce que ñun nit mënu nit munoo évoluer yow sa aduna munoo évoluer mukk tant que yow leex li nga xex leerul sa bopp tant que li ngay xex leerul même ñi ngay andal boko ñom mouvement sax amna na si xamanteni xex bi leerul seen bopp après ngay commencé nekk nit ñi xex bi leerul seen bopp lu tax leerul seen bopp seen bopp day jaxasoo yow soo dëgërul sax dañuy ñëw jaxas sa xel yow parce que da ngay gis ñoom pare guñu quoi comprendre comprendre ñu exactement lan mooy objectif xeex bi principe bi lan la fan lañ jëm lan lan lañ war a taxaw xeex lañ war a taxaw xeex mooy doo ànd ak kenn dëgg bu jotee da nga koy waxtu doo ci am kenn koo ciy seet doo ragal dara yàlla rek ngay ragal yaakaar yàlla lu ñëw ci yàlla nga koy yaakaar luy dem nga xam ne yàlla moo koy yóbbu nga xam yàlla moo koy teg nga bañ a ay calcul quoi calcul yi gaay di def ay calcul lii suma waxe ki kon ke duma jox li kenn suma defé li li duma am lé calcul yoy ngay njëkk dindi tekko na lé nga gëm ba paré nga jël tawakkatu ala allah la khawlu la khawta illa billah nga jiital ko nga nek nga gëm sa bop fi sene Afrique yag na am ay leader à bas âge ay xalé yu ndaw ndaw ndaw ndaw yu gëm sen bop la jor bi mi nek bi mi nek bi mi nek bour 16 ans lam xam 17 ans ñu def ko bour mu nek def ko damal du cœur mu tok ci fasam ñu fal ko def ko bour Gajoor Ngoone fii dafa yàgg am Afrique dafa yàgg am ay jàmbaar ay gaynde dafa yàgg am ay nit yu gëm boo seetee ñun suñu problème mooy suñu histoire ñu ko jàppee jàpp ko ñàkkal ko fay la band barajee ko ba nga xam te ñun gëmuñu suñu bopp parce que xamuñu suñu bopp te ku xamul bopp mënoo bopp te ku mënoo gëm sa bopp boo bopp mënoo gëm yàlla parce que gëm yàlla mi ngi wékku yàlla gëm sa bopp te boo gëmee sa bopp gëm yàlla léegi différence bu gëm bopp lenn kese la mooy xam ni li tax nga gëm sa bopp mooy nga xam ni kii ñëw yàlla moo ko indi kii dem yàlla moo ko yóbbu li ngay am yàlla moo la ko jox li ngay ñàkk yàlla moo la ko xañ lu lay dal yàlla moo la ko teg lu lay lu lay am comme xéwal yàlla moo la koy jox loolu foofu gëm ki gëm yàlla ci ci la ci la am benn benn benn benn affaire bu bu bu lay dugal gëm sa bopp benn affaire bu lay gëmal bu lay dugal gëm sa bopp tey Bougane Gueye Dany mii ngeen gis par exemple maa ngi fàttaliku jamonoy Walfadjri bi muy bàyyi Walfadjri bi mu nekk Walfadjri nekk journaliste bi ko Sylvain Niass di daax dafa ne ko man damay am télé man may am tele boobu amul dara amul dara bobu am na journaliste la bu doon bind ay ñukoy fay bari liñ fukki dërëm mu ne mu jotee ak si lamñaas di bàyyi si lamñaas dakh ko mu ne ko man télé lay am bobu amul dara mais gëmoon na bopam quoi gëmoon na ni mom day am mu ñafé xex gëm bopam ba am ko ba yegg fi mu yegg nii pour wax rek pour man message rek laa wax manam loolu pour la jeunesse sénégalaise pour ñu gëm suñu bop ni xamni gëm ya gëm yalla bi tamit daf ci dalay dimbali moy tax nga mëna gëm sa bop exemple la rek exemple la wax ci Bougane Gueye tay rek li nak man bu benn sénégalais am yaakaar ni ñun am na lu ndaw lu ñu reculer loo dama ko wax souvent ma ne bu sénégalais yëpp àndoon wan ñu ginnaaw lu tere fi ñu nekk ni ak propos yi ñuy wax ni ak li ñuy xeex ni ñu ci dindi yotaa bu sénégalais yëpp àndoon ànd ak ñun du tax ñu jël suñu bopp dañu xam ne yàlla moo ñu dimbali barkeel suñuy wax dëgëral suñu fit may ñu xel xol bu dal si gindi ñu ci saatikal mu saxim ba ñu mën a xeexal ba ñu mën a xeexal xeexal Sénégal quoi te réussir di ko mën a réussir yombul nag yombul moo tax nga mën a xam kan nga war a àndal fan nga war a taxaw lan nga war a wax ak lan moo tax nga am sañ taxaw ne diw laa àndal ci xeex lan moo nga am fitu sañ-sañu taxaw ne Sénégal ñun lii lañ ko bëgg lan moo tax ñu am sañ-sañu taxaw ne dañuy xeex góor jigéen affiché wu su suñuy kanam wane suñuy lépp yombul ñu bëree bëri sañu ñu lool parce que xeex ak góor jigéen doo xam kan ngay xeexal Sénégal dafa bëri góor jigéen ci autorité yi dafa bëri góor jigéen ci artistes yi dafa bëri góor jigéen ay nit yoo xam da ngay dajeek ñoom xam te doo leen xam ba médecin bi lay faj sa xamul ndax góor jigéen wala du góor jigéen xeex yooyu yombul

non lañuy ñuy ngeen ñi gis ñu bolé suñu activité ak suñu yor suñu njaboot ak fay suñu loyer bolé ko tëj ay tëjum kasso ay manifestation ay dóolante ak alkaati yi dañ ko bolé ñun dañ ko boole motax tax loolu si wax naan Sonko du ñu gëna a gore parce que man man nanguma ma Sénégal di ma gëna a gore mais ngeen am respect touti ci ñun li nga xam ñu ngi koy xex même su fekkee ni àndu leen si sax mais ngeen respecté xam li ñuy xeex ni dëgg la quoi ngeen ngeen delloo ñu tuuti njukkal ci

lan moo tax tey ñu am accès taxaw ñu am accès taxaw te foo nee Karim wala bu ñu nee Karim rek wala ñuy wax suñu discours wala ñuy wax suñu live rek ñëpp jot ci ku nekk mën cee jot léegi nag dafa am ay relation yu am nit ñi fu nekk lañ lay contacter am na suñoo xam ndeysaan da nga dem ba euh, dafa am ay nit yoo xam ni boobu ay phénomène Sonko yëpp ay phénomène Sonko beeg ay passifs yëpp amagul boobu patriotisme ndeysaan nekk guloon ci politique bi mi ngi nekkoo ci activisme rek

déggatu ma ko fenn su fekkee mi ngoy may dégg bu mu mënee dimbali mo meuna a un numéro am wala mu dimbali ma ci numéro quoi contacté ma. ñoo xamanté ni tay état récupéré na leen ñoo xamni tay ay xaliss dañ ñam jox am ñoo xamni sen problème bu ñu siwee rek dañ koy monnaie parce que siw bi aussi en général yaay loolu lañ koy doyee bu ñu demee ba gis ñi ñang ngi leen di suivre rek seen live yaa ngi def ay 2000 vues 20000 vues rek ay 20000 vues rek ñu ñu rek ñu commencé ko monnaie état bi leen utiliser di leen jox xaliss après ñu ñuy encaissé xaliss bi quoi dal di commencer changer commencé taxaw ñi doon xéxal dem ñu and taxaw wala di leen xéx yoy yep yu mëna a nekk la té pourtant bo sété yeen gaay gaay gars ñu bëgg ba tax ñuy jaay seen kor ñun bëgg nañ ko kèn ñun bañu ñu kër bañu ñu ay xaliss bañu ñu auto mais dañu bëgg auto bu diñ dañu bëgg kër gu diñ dañu bëgg xaliss bu lew set dañu bëgg son mbaxana yu lew yéré yu bax ñu lew tak ay montre yu lew dañu bëgg dem nekk nit yu diñ nga xam bu ñu sigé di wax kèn duñu yàpp bu ñu sigé di dox dañuy sigé di dox suñu doomi suba kèn du leen xass ñu taxaw ne seen baay fi xeexoon lii seen baay moo fi xeexoon lii xeex ko gëm ko te kenn mën a yow ko parce que amoon naa jamono esclavage mais amoon esclavage amoon na de boo demee ay les États-Unis am na ci famille yoo xamante ni ba léegi nii ils kenn respecté wu leen kenn parce que ñoom dañoon jaay ñoom ñoo doon seen ngor nekk traître yi nga xam ñoo doon jaay seen frère noir yi amoon na Sénégal tamit mais Serigne Touba Serigne Touba Serigne Touba Serigne Touba fii ñan ñoo ñan ñoo ko doon fenal pour ñan ñoo doon wax Serigne Touba terroriste la <laughs> mais du ay sénégalais yu ñuul kukk sénégalais sant Dieng Diop Fall Diop Diar Fall Jaxate ñoo doon jaxase Serigne Touba tubaab bi ndax si a iñaan ak soxor di gis ni kii am lu ko yàlla may Serigne Touba loolu la moo tax mu sonn parce que c'est-à-dire pour wax nii te loolu ba tey histoire l'histoire se répète c'est la roue qui tourne rek affaire yi xoolal l'histoire se répète léegi nag même. nit yi yàqkat yoy même saboteur yoy sen domi ak sen sët batay ñofi nek di yak di saboter xex bi gis njëriñu xex bu am doole ngay xex pour intérêt Sénégal di xex pour alcorane bi dugg ci école ngay xex pour góor jigéen dañ Sénégal ñu xex pour jële fi formation yi di xex pour jikko yi valeur nga gis ay nit yo xamanteni ñom ñoom ñu ngi lu ñu dundé tax ñu wër ay nit yo xam dañ leen jox lu ñu dundé tax ñu taxaw fas salfa salfaañe loolu dëggati ko la critique yak sa der boo dëgëru ko gor nekkoo ko ragal yalla nekkoo ko gëm da ngay mujj abandonné da ngay abandonné kay parce que say mbokk ñu leen ñu wax non lii est-ce que jar na ko ay non ñu ngi lay saaga fii saa saa saaga fu mu tax fan la tax bàyyi na sama sëriñ nee na bàyyi na ëmb na rek ko waxal waa ku bàyyiwul Serigne Touba bàyyi woo yonante ba moom sala salam bàyyi woo bàyyi woo bàyyi woo Cheikh Tidiane bàyyi woo Limaamu Laay kan nga bàyyi léegi ah ñu léegi ñun ñooy ñan ba kenn ñu kenn duñu kenn duñu clash kenn duñu xas kenn duñu sosal mais xeex bi loolu

raay bi mën day gudd xam naa day gudd ko xamul tax ma koy def pour wax sénégalais la waalo gën a taxaw di défendre président Sonko di ànd président Sonko ci manifestation ci ko xam ñemewuñu taxaw ne Sonko lañu àndal wala xamul lu tax parce que dañ léegi gis ku naan non li ñu ne non Sonko moo nekk sa ginnaaw Sonko mu daa dara bay nekk sa ginnaaw boo nekkee koo xamante ne nii da nga gëm ni idéologie bi mooy idéologie bu dëgg nga xam ne lii boobu ba léegi ñu ngi ko ut amuñ ko boobu léegi ñu ngi xeex amuñ ko di rey suñu bopp ñu gis benn nit bu ko porté man damay taxaw ak ku mën a doon neneen man diw laa àndal ndax sacrifice bi daf man du gën a gore idéologie bii laay jàpp ba keroog ma gis contraire fii laa taxaw utuma lu ci neex kenn utuma ay fans utuma mbooloo utuma ñu ànd ak man utuma ko kontaan utuma ko mer utuma ko ree mais nag man lii laa gëm te lu may ma gëm wax quand je suis pas d'accord

naturellement day soxor bay soxori bopam naturellement yak nañ ko rek quoi parce que mi ngi avant lii daal gars yaa nañ quoi amna do xam sax lan motax legui nak nag yow faire. dëgërul qui fulla amo fayda def ta yalla tax fi la da ngay bay ñun ñu bi ñun dañuy Sénégal ci ñu nga xam ne dañuy gis ay doomu Macky Sall di jaay ay oto 200 millions gis ay Farba Ngom ay géwalu Macky Sall yor ay 4 x yu dul jeex yor ay oto yu bëree bëri ñu dem ba bâche yenn oto yi ngay gis ay ay waykatu Macky Sall di yor ay alal yu dul jeex ay góor jigéen ñeen jox ay passeport diplomatique ay sëriñu tariyax ñeen jox ay passeport diplomatique loolu day jeex Sénégal te dañ koy xeex loolu day jeex Sénégal dañ koy xeex ngeen dem yéen yéen ko gis yéen la ñu wax bërki léegi si TFM sàcc courant yi TFM bi sàcc courant bu fekkee dañuy bu fekkee loolu moo am ñun fan lañ jëm ñun te pourtant ñun ñii ñu ngi taxale suñu kër yi la jor ñun sàcc ñu courant sàcc ñu courant dañuy fay courant normal sàcc ñu courant ñun ñii suñu kër yi nekk ni sàcc ñu courant sàcc ñu ndox lekk ñu alal bu lewul te defuñu ko pour sénégalais defuñu ko dañ koy def te yàlla tax léegi ñi nga xam yow yow bu ñu waxee ne yow doo fay impôt ñoo la koy waxal yow nguur bu ñëw nga farak moom yow askan wi ngay dundee yemoo ci loolu ngay pëtëxal entreprise di pëtëxal di sàcc courant sénégal fu mu jëm alors ci loolu ngeen gis ay doomu arab yoo xam ñoom nu mu metti metti yi reste avec leur dignité ak seen gëm-gëm ak seen ragal yàlla di sóoraale yàlla ci lépp lu def di drayante di te loolu te loolu defuñu ko pour kenn ah ko pour ñu parce que moo ñuy dimbali fii ak là. parce que yàlla moo ne bo boo topp yàlla doo ko rëccu yàlla rek moo wóor moom rek mais maanaam bëgg wax mais léegi buñ koy ah, il faut ñu leer moo tax gars affaire bi guerre médiatique

jox ko xaalis bu dul jeex ne ko dem ci hôtel yi nek ci hôtel yi di nek xale jigeen yu ndaw ay xale yo xam ay 16 ans 18 ans nek ay kilifa ci dëkk bi la wax de nek ay kilifa ci dëkk bi la wax ay kilifa ñëpp xam leen ñu gis ay nit yo xamni ay gel seen jabar yi ñu leen di ak auto fekk leen ci hôtel yi ak seen seen seen seen seen seen seen seen seen ay gel ak seen gel seen jabar yi xeex ñoom ci mbedd bi ñu nek ay nit yu siw ñu ñëpp xam loolu suñu yoon nekku si ñu dama ni vie privée jàmm vie privée la mais dama damay wax parenthèse la rek damay wax rek damay wax exemple la wax rek quoi ñu gis ay nit yoo xam ne ay sëriñ la ñuy woote woo ñuy biiral ay xale yu ndaw ay taalibe di leen nax sëriñ maanaam dangay woote benn sëriñ bu mag kilifa diine bu mag ñu gis da ngay biiral ay xale yu ndaw ndaw ñu gis ay nit yoo xam ni dañuy dem di jël ay hôtel di jël xale yu jigéen yi di leen jox oto ah jox leen appartement di leen fayal appartement 500000 francs fii nii Almadi te dañu am jabar ami doom am kër alalu réew mi la rek dem di tëdd xale yu jigéen yi i prostituée quoi yu ñuy foobee. la loolu yëpp nekk fi ñoo xam ne ñoo la mag ñoo la ëpp xaalis ñu mag fu mu ëpp ñu xaalis amaana buy jàng sax ñoo la gën a jàng léegi yéen nag ñun nag ñu sacrifier suñu àdduna ñun parce que on est des jeunes ñun du ñu mag ñuy jaayante nag duñu nuyu jigéen du njaaloo ñu ngi sant yàlla baax na di ci sant yàlla yàlla yàlla musal te sàmmal ñu ko dafal ñu cat ñuy góorgóorlu ba lépp loo xam ne lu négatif la yàlla bugg ko ñu moytu ko te yàlla tax nag xam ne loolu mooy force xeex bi te yàlla tax léegi nag ñu bëgg nag ne ñoom loolu non ñii booy yi genre booy yi nii genre nit yi mel ni ay Ousmane Sonko ay booy ñoom Karim yi ay Guy Marius Sagna yi nii ay ñoom caat yi nii ñii ñii mënul nekk Sénégal mënul nekk waruñu réussir bu ñu réussir kon ñoom ñoom du baax si ñoom léegi nag moo tax ñoom dañuy def seen kéemtulaay kàttan dajale seen i nit ah pour ñoom di def seen pour ñoom pour ñoom fexe ñu diaboliser ñu quoi ñoom ne non lii mënul nekk booy ñi mënuñu jub quoi jub mënul am mbaax mënul nekk ngeen mënul leen baax quoi si billaahi wallaahi baax am na wallaahi azim gor yaa ngi fi fes del بالله والله نيغي في دي غوري ويت غوري ويتلوكو غوري ويت غوري ويتلوكو غوري والله العظيم نيغي في دي گم لو باخ دي بگ لو باخ با بار دي بگل لو باخ سنغال تا دي كين دونو ديكوراجي كين كين دونو ديكوراجي سادي سادي سادي سادي ميساج يو خام il faut gaay xam ko كين دونو فيتنال كين دونو ديكوراجي سي خير بي تا ني نك يين با كيرو سنغال دي ديف تشوچو تا ان شاء الله ماكسال دنجكو جيلي سي بوب ريومي دنجكو في جيلي سي ني ولا نجيلي كو في ني li fi que train bi nga système certains hommes politiques ay les artistes les artistes là ay ñom ay genre Youssou Ndour yek ay genre genre nga dañuy dund la ut ay sac manam ñu bëgg comme comme genre nga exemple exemple rek ah, parenthèse la rek ci la il était tellement engagé ci yi mag la bi ci la ci biir xeex bi la nekkoon di ñafe di góorgóorlu di dóor muy daanu dafay émission yu am solo yoo xamante ni affaire ay affaire den wax ay daara yi dugg si école yi daara bi dugg si école yi dafay émission yu am doole mais Ndoye Bane dafa jekki jékki rek bi mu nee ba approché ñenn ñi gàddu saagam sol sippam dem taxaw buntu ñoom Youssou kër Youssou Ndour nekk leneen kenn xamatul la la travesti changé carrément te pourtant moom li mu doon xeex sa léegi xamul sax lan la koy lan lan la kenn xamul la fan la ko jaar léegi contraire loolu la nekk di def te pourtant li mu bëgg ñun bëgg nañ ko li mu am ñun bëgg nañ ko li ñu bëgg nañ ñun bëgg nañ ko ñoom problème yi ñu am ñun dañ koy am li tax ba muy def loolu ñun dañ koy am ñu dañu am ay yaay am ay doom am ay sœur am ay frère am ay soxla te dañuy liggéey comme ñëpp ñu ngi ci mbay mi ñu ngi ci njaay mi ñu ngi ci lu nekk te pourtant amul lan luy tax ñu jaay suñu ngor même suñuy dugg ci tataay taxi yéeg ci moto yi sax duñ jaay suñu ngor parce que ngor kenn du ko jaay da fekk moom laa xam ne tur tur ci sa tur

2013 2013 dama am Macky Sall njëkk a jàpp dugal ci laa dugg Rebeuss fekk xale yi Colobane si kaso bi fekk fa ay cas yu doy waar ci kaso bi ci lañ génn ci lañ créé mouvement nitu dëgg foofu ci kaso bi ñu génn 2013 2014 2015 encore 2016 ñu nekkaat ci encore manifestation Imam Ndaw ñu jàpp Imam Ndaw ma dugg ci kaso bi ma dugg dem ut visite seeti ñu jàppaat ma encore def point de presse ñu jàpp ma si affaire Imam Ndaw encore defeere ma ma dugg si kaso bi encore 2004 2017 2018 2019 ñu dem Macky Sall sàcc élection yi ma dem taxaw buntu buntu buntu ma dem taxaw place de l'indépendance ñu jàppaat ma encore defeere ma ci live kese bërki dem damay def live nañ tëji jàkka yi ma la ni loolu dañ koy def pour dañ ko bu yàgg bu doon leneen rek moo tax ñu koy def bàyyi nañ ko bu yàgg mais dañu def pour rek wan Sénégalais pour ñu démystifier kaso pour ñu démystifier pour ñu xam ne ñun li ñuy def ni yàlla moo tax ñu di ko def te li tax yàlla yàlla te kenn du la tax nga ragal parce que yàlla dafa doy wéeruwaay yàlla dafa doy wéeruwaay mais ñi yëpp il faut ñu koy wax pour ñi dabe ci xeex comprendre parce que am na ñoo xam ne xamuñu dañoo xëy rek gis ñu nii quoi gis ñuy wax nii rek xamuñu yaakaar ne waa ji daal dafa ni kët rek na joon commencé gars yi daal la bëgg lu yomb gars yi dañoo nangam nangam nangam non saa li ñuy dund nii dañ ko dafa yàgg te danga am jabar ami doom am kër ami soxla Guy Marius Sagna daa am jabar ami doom am kër ami soxla kilifa bu kër gi daa am jabar ami doom ami kër ami soxla am ñun dañu am suñuy liggéey am suñuy xaalis jël ko ko ci ay liggéey di ñàkk di dem di ñëw di lijjanti suñuy dañoo am ay yaay am ay doom bu am li tax ngeen di jaay seen ngor ñun dañ ko am li tax ngeen di jaay seen ngor problème seen soxla ñun dañ ko li tax ngeen di daw di dugg ci gaal yi ñun am nañ ko problème yooyu am nañ ko ñun yee dañuy toog di am ay problème mu luyaas dañuy toog di am problème mu luyaas dafa leer dañuy toog di am ay problème mu loyer comme ñëpp di am ay problème courant di am problème mu ndox di am problème te ko comme comme tous les Sénégalais comme tous les Sénégalais amul lenn lu ñu leen ëppalee amul lenn lu ñu leen ëppalee lenn lenn ñu ëppalee leen dara dara dara dara dara li ñu bëgg rek mooy ngeen xam ni Sénégal dëkk la boo xamante ne nii buñ ko dimbaliwulee combat combat bi su amul ñu ko porté Sénégal du ci génn du ci génn parce que ñi ma gis nii nga xam ne tey gis ngeen ñepp xam nañ ni tay ben, dans l'histoire du Sénégal ñi fi jotta a combat yi dimbali Sénégal yépp dañ leen dëmm ba ray leen comprendre c'est ñi nga xamanteni ñi nga xamanteni comprendre nañ ñu ne leen non Sénégal dal leen du gën réussir quoi Sénégal ñi fi jotoon na combattre yépp Mamadou Diop Mamadou Dia dal nako yalla yàlla Cheikh Anta Diop kan ngeen ci gis rek ko xamni réussir na à chaque fois rek opinion bi li ëpp ci mbolo bi ñooy taxaw di wax di ko xeex di expliquer ñu jaxase ko sëriñ si jaxase kook ku nekk di xex di wax di wax ba koku dootul jarati dara bu ko wax mu ne cam bu dé ba dé ba ñu ñak ko ci lañu so comprendre ndeke rek ñun ñak nañ ko grave Sénégal mo mel non li nak dafa am li nak da musul am dans l'histoire ñu dem ba tollu fo xamanteni nit ñi li commencé nañ conscience jeunesse bi di comprendre ñi dañu doon nax quoi léegi cette fois ci nag kenn dootuñu nax xam nga loolu moo tax man à chaque fois mo tax kérok bi président Sonko defee discours bobu boobu ma génn pour prêter attention ñi ñi ci discours bi ni engagement bi nekk ci discours bi ak risque yi ci nekk yépp ak risques yi ci nekk yëpp waaw ah, da ngeen yaakaar ni kon Sonko muy dem di ba muy dem di ba muy ba ba muy nekk euh, di nekk euh, agent wu kii impôt nekk nekk agent wu kii xam nga bi mu nekk di job si jobu boobu noonu cest à bi mu koy nekk da ngeen yaakaar ni moom amuloon soxla wala amuloon bëgguloon kër wala bëgguloon oto yu rafet wala bëgguloon am ay milliards comme ni ko ñi mu nekk lib ñi mu nekk lib entreprise ni ñu mel da ngeen yaakaar bëggoon wala mënu koon am wala mu loon def am ko mais parce que dafa yàlla quoi te yàlla boobu mooy raam ba tey tey Sonko bobu nga xamni def na ati ati ati ati di di di tray di alal bu nga professeur Cheikh wax dem di pour corruption la dem président 500 millions ci

Mais ñu y bay dugg vie privée quoi lu am pour lu pour comme ont rek dañ naan non ñu ko lu tax mu bon si si mais Sénégal xanaa des na mérité ben dom, bu bu def politique Sénégal xanaa mérité ay patriote ay nit yu nañ waxante rek Sénégal xanaa mérité ay ay ay nit yu baax barki Seydina Mohamed ñun du ñu naan kenn gënuñoo ko yéen kay jaay seen ngor war leen moom laa si lu toll ci 20 millions mu koy génnee di ko def par pièce di ko génnee ba mu jeex juróomi dërëm lekk ko si. restant bi mu teg ko loxo compté ko teg sama loxo ma koy wax mu ne ma ci laal dërëm kooku dégg ñu koy tam dëmm. donc kon ñu baax ñi di baax gëm yàlla ragal ko di jaamu yàlla te yàlla rek tax dëggu dëggal fexe ñëpp dëggu léegi nag histoire du Sénégal lenn kese la mooy ngeen xam ne ñun bi Sénégal bi ñu nekk ay bañkat dafa yàgg du tey. léegi nag tubaab bi ñoo ñëw dugg suñu biir jaxase ñu jàpp affaire bu ko defee affaire u géwal affaire u lawbe affaire u soose affaire du yooyu affaire xam nga la mooy dignité amul xeet amul famille dignité xam nga lan la si nit lay nekk ci ngoram loolu mooy ñun dañu dañu war a jaayante nekk ay nit yu diñ tubaab bi waxee ñu ne la ñoom boo demee si Europe maa ngi wax l'autre ne la viking yi viking boo demee mooy seen maam yi nga xam ñoom nee nañ viking ñooy xeet bi gën a ponkal gën a intelligent ñoo doon coloniser ñëpp ñoo fi dàqoon xeex ñoo gën a baax diñ ñoo gënoon organisé ñoom ñoo def ñoo sànc Europe mooy viking ñooy seen guerrier mooy Europe nga dem Amérique ñoo la cowboy yi cowboy mooy borom mbax na yooyu yor postale yi ñoo gën a dañoo gaaw am réflexe ñoo doon colonisé ñoo doon géré ñoo gënoon civilisé ñoo ñoo colonisé Amérique yëpp ñoom ñooy seen maam ñoo samp Amérique ba mu nekk nga dem Asie ñu ne les samouraay samouraay dañoo intelligent mën a xeex yaru civilisé mën a bay mën a booloo am honneur am dignité bu ñu war mën a xeex samouraay nga ñëw Afrique ñu la amul nga ñëw Afrique ñu ne amul quoi te Afrique mooy best de l'humanité ñu ne loolu amul quoi ñu ne kon ñun amuñu woon ñun amuñu Maba Diakhou Ba quoi Maba Diakhou Ba nga xam ne tubaab bi musu ko dóor ci xeex tubaab bi musu ko gañee ci xeex ñu ne ñun amuñu ñu ne ñun amuñu Cheikh Omar Foutiyou Tall Cheikh Omar Foutiyou Tall nga xam ne amul fu mu ci Sénégal ci Afrique de l'Ouest di tas di l'islam boobu sëriñ si sëriñ si dem na yor fasam fu nekk dem na fa ah ñu ne ñun amuñu Serigne Touba amul benn jàngale bu ñu mën a dimbale ñu ne ñun amuñu Baye Niass ñu ne ñun amuñu même jàngu bi ñu ne ñun amuñu ay valeur loolu mënul nekk ñun ñun amuñu ay nit quoi léegi nag jikko yooyu nag nga xam ne ñun am nañ ko nga xam ne tubaab bi fexe nañ ba ñàkkal ko fayda ba ñun ci éducation système d' éducation bi ñun ñu perte ko à basage nga xam ne fexe nañ ba tubaab bi ay Karl Marx la ñuy jàngal ay Rousseau ay kenn xamul ñoo nga xam ne buñ dul góor jigéen ay formation lañ jàngal ñu ay livres yoo xam ñu ko bind ñoom dañ ne yàlla moom yàlla yàlla bokk ci moom yàlla dee na te ñun ñu am ay mag yoo xam ne samp nañ fi lu ne amul benn homme politique du Mbàkke Mbàkke du Sibeen du Ñaseen du Laayeen du Xaadir du kenn ku ne nañ fexe ba xeex góorgóorlu jël njàngaleem Serigne Touba Alaaji Maalik fexe ba histoire Maba Jaxu Ba histoire Cheikh Omar Fouti ñu fekk ko dugal ko ci école yi fexe ba wan leen valeur wan gëm-gëm ak dëggu fexe ba wan ni ñun am nañ ay maam yoo xam ne ñoom Sénégal daf leen mos a ñor ak diine ak valeur ah Souleymane Ba ñun amuñu Souleymane Ba amuñu Samori Touré Afrique amul Samori Touré loolu mënul nekk amuñu ko ni teng la te ñoo am ay valeur te ay jeunes lañu woon xale yu ndaw Seydina Muhammad sallallahu alayhi ñi ko waroon saaba yi ay xale yu ndaw ñoo ko waroon di xeex xale yu ndaw yoo xam ne àdduna tolloo nañ seen digg doole mun am seen i mbay am seen i xaalis am ay jigéen am lépp comme yéen neen àdduna joxe bopp nii moo tax loolu si ma ne kon baax na ci sénégalais bu ne mu toog xool ne man de man surtout man jeunesse bi laay waxal nga ne yow de tey maanaam journée tey ajuma par exemple bi nga xëyee ci suba 8 heures ba ci ngoon bi huit ci suba lan nga defal yàlla yow maanaam jeudi démb boo tëddee balaa nga tëddi ci lal boo dee bay waaji nelaw nga ne man tey lan laa def te yàlla rek tax nga ne man de tey lan laa def te yàlla tax mais gaan alxuraan dafa ni seen dee da leen di bett seen dee da leen di bett alxuraan loolu la wax lan lañ def te yàlla tax lan lan nga def rek yow te yàlla tax mais ñun dañuy top dëkk bi di tëñ tëñ xini rek mel ay xar lu ñëw këf ñu yóbbu ñu ku ñëw këf ñu yóbbu ñu lay jox ay 2500 ngay déplacer wu pour ay homme politique yo xamanteni ñom seen jëm bopp sax xamnu xamnu seen bop ñom ay nit yo xamni gëmuñ dara yow mënoo nekk nit di jaamu yàlla di julli ci jàkka di ray sa bop bo werlu yaangi ci xasida yi yaangi julli di ray sa bop ay nit yo xamni xolal xoolal fu leen sobee yóbbu keuf keuf len waxtu julli suñu ko sax lijjanti bu ñu sawé duñ sax wisu bëgg nekk sa kilifa bëgg la yilif mënuñu mënuñu sax lire affaire wuñu sax ijji bëgg la yilif bëgg la moom bëgg la noot yow nga nekk ne patt ne tekk noppi rek yow boo dee yow foo foo jëm yàlla bëggul ko ñàkk fayda yàlla bëggul ko ñàkk fayda léegi nag li ñëpp bokk nag dafa jot ñëpp jot ci loolu nag mooy idéologie bi tax ñun ñu taxaw ñun ñëpp nag ne dañuy taxaw xeex jàkkaarloo ñi nga xam ñoo fi nekk waaw ay fookat kese lañ ak ay fenkat ngeen baal ma ci baat bi ay fookati ki fenkat kese la man gisuma fi ba tey koo xamante ni man ragal naa ko wala tax na ma ragal ko may dalu ginnaaw ko man gisuma fi koo xam ne tax na man ma bañ am sañ-sañu xeex man gisuma fi koo xam ne tax na man ma ma war a mën a reculer quoi ba pare gisuma fi tamit ku ma jaral may jaay sama ngor man gisuma ku ma bu ma waxuma la sax nit mais ku ma lu ma jaral may jaay sama ngor comme ça wax naa leen ko billaahi wallaahi tallaahi su ma la waxoon politiciens yi dugg sama kër gii fi ñëw fii di wax su ma la waxoon politiciens yi dugg fi ñëw di wax su ma bëggoon oto ne leen ay co oto benn terrain laa bëgg fee koy jox dañ ma rek ma nekk seen géwal pour rek ma toog xalamal leen mënon na tok def la ci ben politicien nee nañ ko ki mais mais man lool duma ko def parce que man man sama diggante sama borom lay xol parce que li nga am ba téy ko moomoo ko sax boy xalat bo nga xam li nga am li nga namu, nga mom li nga lek rek nga mom auto bi nga tok di dool sax moomoo li nga lek rek nga mom yére bi nga sol tay rek nga mom yow lo xam yow li nga def ci banque bi sax moomoo ko parce que yow xamoo ndax suba di nga yow wa bo ci jaay sa ngor fo jëm masta nag xam nga ñuy jaay suñu ngor ci ay détails di ñàkk suñu bopp suñu bokk ay fayda kon bu ñuy xeex dépassé nañ di xeex pour ay nit wala di contre benn nit di ko xeex bu ñuy xeex dépassé nañ di xeex pour pour ay ay ay ay ay ay weccit quoi ay xaalis ay ay non non non non non non non mais dañu bàyyi bàyyi damaa bëgg sénégalais yëpp sénégalais bu nekk loo mu gàtt gàtt boo feebaree nga faju ngay liggéey kër gu nekk lu mu dee dee dee dañu am problème mu courant ndox sénégalais bàyyi jënd ordonnance dëkk

mais kër goo xam ne yàlla daf la ko defaral ba mu rafet boobu ba léegi 1960 ba tey kenn mënu si def dara amul kenn ku si def dara loo xam mën na jëriñ Sénégal kenn lan la ñuy jaayante dégg tubaab bind fi ay livres yu dul jeex amul benn njariñ ah bàyyi diine bi teg ko nee foo rek foo rek ak fen kese foo rek ak fen corrompre journalistes yi corrompre artistes yi corrompre sëriñ si corrompre ñëpp ku nekk di loo cob loo cox cox lekk ko après fàtte avenir bi ñëw si kanam fàtte lii ñëwaat si kanam moo sonn rek ku taxaw pour xeex rek ñu tam ko dëmm

ndax lo fi fo meuna dem fo daw dem si aduna bi bo fa demé après dañ nga buddu bokku lo fi demal Angleterre demal France demal laajal Sénégal yi nekk bitim ñom ñep bëggu ñu Europe dara ñibbi rek lañ bëgg ñibbi rek lañ bëgg donc la bi tay mako tay mako da esprit hein ah, pour mu yaatu quoi pour wax sénégalais yi né combat bi patriotisme la té patriotisme dafa am lu mu laaj dafa laaj don de soi dafa laaj ngëm té ngëm ngëm bi moy gëm xex bi té ngëm xex mënu ànd mënu dox te ànd gëm yalla dafa laaj nga xam fan nga jëm nga xam ni ku nekk dina ñëw si yoon bi gàllankoor la mais ku ñëw na la fekk sa ligne rek man doomu aadama mënumaa xeex loo doomu aadama mënumaa bàyyi loo doomu aadama mënumaa jàpp loo doomu aadama mënumaa weddi loo man lu ma def dama ko def par principe ak teg ko ci ngëm ngëm yàlla ak jàpp ne yàlla moom lii yàlla da ko bëgg lu yàlla bëggul dama ko éviter yàlla ma si yàlla musal damay jéem nag mën naa juum mën naa def toj-toj nag mais nit kese la mais nag attention non dinañ def lu nekk ba mu mu jaay ba mu des jaay suñu ngor suñu ngor moom duñ ko jaay quoi parce que amul njëg kenn mënu ko jël mais nag am sénégalais yu xaj ci poche yu xaj ci poche yo xam dañuy taal sen portable pour ay nit dañuy tok di def ay live pour ay doom aadama dañuy tok di wax pour nit nek ay jëwlu nit dañuy tok pour pour luñu dundé am ñu xam loolu lañuy wut loolu lañuy daw tout temps dañuy daw luñu dundé té loolu man japp naa ni loolu c'est des besoins animaux parce que animaux loolu lañuy wut loolu lek lo naan fo teud sénégalais yi nak li ci ëpp nak fi surtout kilifa yi luñu lek luñu lu ñu naan fu ñu tëdd kër guma dëkk luma lek luma lu auto buma dawal loolu c'est loolu loolu affaire animaux la loolu ci mala mala rek moo soxla loolu loolu nit day dépassé niveau boobu noonu nit day dépassé loolu nit day xalaat cerveau bi dafa war a projeté di xalaat naka ngay def ba future génération bi yow nan leen fi yàqal yow loo xam bu ñu ñëwee nañ ci taxaw loolu moo defar Europe moo defar Amérique moo defar fépp parce que seen maam yi dañ doon réfléchir di xool naka la ñuy def ba bàyyi fa bàyyi mucc mucc ayib mais suñu homme politique yëpp a ngi nii demal si Abdou Diouf le plus grand paresseux demal ci Senghor tey xool demal nga xool Macky Sall ci lan la nekk nii Macky Sall ci lan sen bop rek da loolu mo mo nek ci borom boutique bi mo nek ci dekkando yi mo nek fep ah moo nekk ci car bi mo nek ci chauffeuru car bi day jëkënte ak benen car bi pour bopam rek na autom fess mo nek ci borom moto bi xam nga mom na daw gaaw jëkënte mo nek ci mo nek ci senegal yi da loolu bis bu dañé senegal rek senegal avance bis bu dañé senegal avance bis bu senegal bu nek jappé bopam borom jappé yaayam bu dugg ci tata bi maire bi taxaw nga jappé ko sa yaay nga xam ne bu doon sa yaay mo taxaw do tok dang koy bàyyi mu nga dem ci hôpital bi ngay ran nga gis sa morom yaay nek sa ginaaw nga xam bu doon sa yaay doko baye mu jiitu sa papa nga jàpp ne taximaan bi sa papa la taximan bi japp ni ki mu yab seureum la c'est que loolu bu ko sénégalais defoon sen bopp rek kon avancer rek kon duñu am problème bi mais sénégalais bop sa bop ku nek bopam rek lay xalat bopam rek lay xalat léegi bop sa bopp mo indi nak ngay ni am ay nit yu melni ay ay ay kilifa yu melni ni genre ay président Sonko ay kilifa yu mel ay Guimari Sagna ay nit yu baax yo xamni ay genre nit yoo xam je veux dire ay nit yu digne yu gëm sen bop ah, mais malheureusement parce que da ngay japp ni yow sa problème war na régler rek man ñaat nit la ma di woo non Karim xex bi baxna mais da ngay xalaat sa bop yow da nga am jabar da nga am ay dom ah da nga non Sénégal gaay Senegal, Sénégal Sénégal jarul Sénégal jarul xeexal Sénégal jarul xeexal Sénégal jarul xeexal da Sénégal jarul xeexal Sénégal mo la koy wax de ki la koy wax Sénégal la de man wax bobu sa bu ngi ni nit Mom, ñaar la ci dégg mom sénégalais la mom du malien du guinéen dans la sénégalais jarul mom sénégalais ba pare na la yow yow Karim yow jaroo xeexal parce que bon sénégalais la moom mu ne moom ci boobu moom jarul xeexal ba pare ne sa yaay man sama yaay jarul xeexal c'est-à-dire loolu ku ma ko wax rek man saaga laa koy xeexal da nga leen di xam nga ñuy mais kañ la ñuy toll ci dimension wu jël sénégalais ne ñun ñooy defar sénégalais quoi dëkk day am leader am ay njiit yu responsable am fulla am fayda taxaw tracé loo xam sénégalais ci la ñuy topp mu nekk njëriñu réew mi nekk ci diine nekk ci dëgg nekk ci fulla nekk ci fayda loo xam décider nga kilifa mo décider nga xam bo taxay wax kenn du la yàpp ay détails yu ñak fayda quoi di la koy wax yu ñak fayda parce que yow décision yu am fu la ngay jël nga xam do def affaire partisan nga jaboote té tëddee njaaxanaay nga jaboote té tëddee njaaxanaay kañ la Sénégal di am lool rew bo xam amna am yu mag amna ay sëriñ yu mag a mag mag am ay ñaan am lu né té mënu ci génn ba légui Sénégal mënu ci génn ba tay ba légui Sénégal mënu ci génn lu tax lu tax lu tax benn grand dafa ma benn jour ne Karim dama nga réfléchir Sénégal lan lañ dëppoo ñom ñep jubóo ci lan dama la réfléchir lan rek lo xam Sénégal yi depo nañ ci djubo ci nga xam ni li ñom ñep depo nañ ci djubo ci lan ma di xalat bu sonu xamul lan donc message bi dafa am solo man dala soit gaay wax leen ni ñun demb lañ jug du tay barki demb la ron fête sama 10 ans d'activisme la bi gudd nak mais bon barki demb la ron fête sama 10 ans d'activisme activisme bi ku nekk fekk su nañ man bi may def rap ma ngi am 17 ans 18 ans ñu nekk ci rap bi hardcore bi dem dem ba xam ni li ni doxul

message rek pour am ben public bo xam dañ ko bëgg a public bo xam dañ ko bëgg am accès pour xalé yi bayyi xel ñun combat bi quoi buñu ñu seetaanee si rab suñu kanam déglu suñu live ñaar ñett ñom lu ñu leen éveillé mais dañ koy délo ci diine rek lañ koy délo ci diine rek lañ koy délo wallahi la azim lu waji def dafa ko ci diine tu perds ton temps lu waji def dafa ko ci jàmm yalla tu perds ton temps te loolu c'est valable pour tous les rappeurs hein. pour tous les rappeurs tay bu ma amoon pexe na def leneen lu dur rap ma amone leneen lo xam sama ko defee jeunesse bi déglu lo xam sama ko defoon ndaw ñi déglu ma def lolu mais nooy def ci obligé il faut nga def sound pour sound bi dugg ci monde xalé yi xale yi déglu ko pour mën xam am sensibilisation bu mu am nu mu leen parce que buñu ñu njëkkantewul ak formation yi góor jigéen ñi ñoom dañu am sen programme ak sen ki kii sen financement yor sen artiste di leen financer financé ay nit pour ñuy convaincre pour xalé yi di gis affaire góor jigéen di briller ñu wax ne góor borom teranga la am na lu nekk xalé do di song góor jigéen gi ñun nak fu mu ñoomoon leen ni affaire yi du teranga kese teranga du xaliss teranga du xaliss nit am nga fi lu nekk jëriñoo woo nit ñak na lu nekk te kenn yabu affaire bi mu nga nekk milliardaire sans poche ñun moo wan leen exemple quoi ci ay nit ñu bare bare bare bare bare te loolu xale yi fekk amuñu loolu seen moyen rek ñun dañu am dañuy am problème ay doom dañu am problème mais bu xale bu nekk jàpp nga ni tey faaw nga am oto faaw nga tukki faaw nga dem Angleterre boo toppee dof yu mel ni Jim Thiès nga xam ne fu mu demee Angleterre maa ngi Angleterre maa ngi kii pour ñoom mais lan mooy Angleterre lan mooy États-Unis lan mooy Suisse lan la ña fa nekk sax ñu ngi bëgg ñibbisi mais gars yi bu ñu demee benn voyage bu ndaw rek wan bëgg wan boo yëpp ne leen maa ngi bëri yoruñu dara yoruñu dara te war a wax xale yi ne leen affaire du affaire monde télé virtuel bi télé bi ni mu mel star affaire star teg ay greffage ay jaay affaire sol ay dàll yu bees loolu ça passe passagère dafa am lu ko jiitu mooy d'abord nga gëm yàlla nga ragal ko nga doy loolu la yàlla jox nga liggéey ñàkk jariñ loo am bu lewee rek yow sa problème yëpp day réglé wu suñu bu njëkk suñu mag ñi da ngay gis benn pa pa day am benn kër am ci ñeenti jabar di jox ñëpp dépense ñeenti jabar di joxe dépense dundal ñëpp ñu da ngay am kër yor benn jabar yor ñaari doom doom dépense chaque jour sax xam lu ko waral ñàkk gëm sa bopp jël sa bët loxoti ko takk ko fa xam pare ñàkk sellal suñu diggante suñu borom ñeme lekk riba di ñee ay nit ay ay ñee yoo xam ne yu ñàkk fay la ñoo xam duñu sax sa ndaw la ñaan da nga leen ñeew ak ay amoo dara ay duggul fii am na après ngay topp ay monde yoo xam ne nga xam ne yàgg ñi bokku leen sax jëmuwaay bokku leen jëmuwaay bokku leen jëmuwaay ñu du ñu ay tubaab quoi il faut gars yi dellusiwaat le soir. Nous, nous bu baax ñëw fekk suñu si nous nous li Sénégal Nous, nous avons nous. a a gis mu révolution moo Nous révolution mooy ngeen Nous révolution nit jam mais nous conscience collective Nous jug Nous ku Nous comprendre xale yi jaaykat yi Nous yi sëriñ si

dès maintenant nii ay manifestation yu taxaw bu dégg ba ca bañ nekk si ay détails quoi bañ nekk si ay ñàkk fayda ay détails yoo xam benn njëriñ parce que yi ñuy dugal nii yëpp ay détails yu ñàkk fayda la amul njëriñ tey lan mooy lan mooy njëriñu Sénégal lan mooy avenir du Sénégal dans cinquante ans ndax dañuy toog nii Macky Sall di gouverner Sénégal nii rek quoi jàpp pétrole bi gaz bi fer bi uranium bi yëpp jaay jàpp assemblée nationale bi foowee ko justice mu jël def ko ci poosam jël ay jabaram ki doomam jël ay frèram jox leen fu nekk maire yi jàpp armée bi mu foowee ko mu yàq ko jax armée bi foowee jàpp lépp band dé ko di def ay campagne ñu ko nexé fébal bi covid bi su ko nexé mu covid bi deuxième vague première vague tout calcul politique rek nan laay def ba noot askan bi rek ñi ñi nopp nag ñu bëgg tok nek ci ay détails yu ñak fayda ay diw amna li di xolal diw né diw dugg fi fii diw gën na fay non ya li nek suñu kanam moo ëpp doole loolu quoi donc mo wax ni on est prêt à tout pour ce Sénégal kenn duñu délo ginaaw on est prêt à tout dama koy wax waxat ko waxat ko on est prêt à tout tax ma koy waxat encore aussi pour and nag ak président Ousmane Sonko fekk mu ci idéologie bi mu nekk nii ak principe bi ak discours bi mu jox noonu na gars yi delloo foofu débat bi tàqali ko carrément ak France jàkkaarloog ñoom wan moo tax man man amoo complexe boobu man maa nii man je le dis haut et fort li ma wax ne concerné wul concerné concerné wul nitu dëgg man la concerné man Abdou Karim Gueye man je suis avec son Sonko man wax ma waxi Pastef bi ci idéologie principe bi soxlaw ma ay déggante ak moom soxlaw ma mu woo ma soxlaw ma mu dara ma soxlaw ma ànd ak moom sax xama laa bëgg ñu xam ne Idriss boobu dañ ko war a def dox wàcc campagne ko dox ko wax ko sensibiliser dox ci dëgër ci parce que dafa nekk lu noobu loo xam ne dafa raar gëj nañ ko gis ci Mamadou Dia nañ ñafe def ko def ko def ko def ko jaamu yàlla def ko fi sabili la dignement bis bu ñu bu ñu réussir suñu génération ñun ñu fexe ba Sonko toog ci bopp réew mi après moom su toogee su liggéeyulee ñu mel ni musiba ci kaw mais ñu xam ne idéologie bii nii kenn mënu ko changé te Sonko mënul changé sax mënul soppeeku mënul nekk ba ngeen parce que gis Sénégal fi mu yegg nii mosu fa yegg. léegi nag le temps ñu nekk fii la ñu nekk si ay détails boo na ay def di xool naka lay doxalee di xool naka lay def ba yi naka lay def leen xaalis naka lay nax ñi naka boo fekk na ñun ñu ngi nelaw nekk si ay détails nekk ci soirée ñàkk fayda yi nekk ci détails yi nekk ci télé yi téléfilm yi nekk ci théâtre yi nekk suñu ñàkk fayda yoo xamante ni xoolal après ñun dañuy fi bàyyil ay pax yoo xam ne xamuñu lu koy sakk suñu jàngu doom du baax suñu tal yi du baax suñu hôpitaux yi du baax duñu am eau potable nekk ci ay jafe rek Sénégal a ngi mel ni les années 60 ba léegi nii changé am nañ ci part de responsabilité de mag ñi démb am nañ ci part de responsabilité ñun tamit am nañ ci part de responsabilité am nañ ci part bu mag a mag a mag a mag

te képp koo xam ne nga taxaw pour xeex Macky Sall pour dimbali Sénégal ñu dañuy ànd ak yow dem te boo ko engagé woo jël responsabilité ñun ñu engage mbagg ak mbagg tànk ak tànk ba keroog solo quoi kon bu ñu gars yi dugal ci bu ñu bëggoon yeneen am nañ ko bu yàgg on a toutes les possibilités dem voyager dem nekk feneen dem nekk si leneen mais ñu ngi toog di xeex ba tey waaye waaye nañ ñu loolu quoi respecté ñu ko ñu bàyyi ñu ko maa ngi jégalu den baalu ax laaj bi gudd na mais dafa day baax xam nga génn si xol yëpp laaj bi na trop nag maa ngi seer ñëpp di baalu ak ñëpp di wax ñu wax la subhanahu wa taala su bonee ngeen xam ni si man la rek euh, que dinañ defaat yeneen live a yaatal et que képp koo xam ne bëgg loo xam bëgg nga ñu waxtaanee ko bi 77 wax lan nga ñu waxtaan si euh, euh, ñu ànd ñu gunge président Sonko fex ko teg ci pale bi pour dimbali Sénégal libéré ko xam nga keroog maa koy wax ma ni waxoon naa ko Sénégal gars yi looy wax nii may leen Sonko est dix fois plus fort que Thomas Sankara ñu naan non mais looy wax nii est ce que xam nga looy wax Thomas Sankara dafa def coup d'état quoi militaire la woon ba pare am arme am ci pouvoir bi Sonko lan la yor ban coup la def ban arme la am est gis ngeen li mu taxaw di engagé li Thomas Sankara discours yi mu doon wax dafa fekk mu yor fital yor armée ci ginnaaw.

quitter le pouvoir tay dama waxo révolution yi Sonko di wax limi def ni yëpp ñi ko don def dañu taxaw ay rebelle lañ won dañ ñon taxaw indi yon taxaw xex ba tak samp ko indi fital indi xex mais waji joo xamni yorul dara amul sax garde corps yu deugal amul sax garde corps yu deugal war ñu sax nangu ay nit diko critiquer diko tek fo xamni teguñu ko fenn parce que ñom dañuy prostituer wu quoi xaliss lañ lay jox wecc ñu taxaw di ŋàññi ko xamanteni fa sacrifier aduna wax moo ko pour ay populisme de man xam ngeen ni Sonko bu jaadee yoon man maa fii laa taxaw bombardé ko bu baax xam ngeen ma mais bu bu tollee si gis njëriñ bi nag gis valeur affaire yi mais jël affaire yi ngeen téye ko quoi saa yàlla bu la teralee da koy xam nga teral sa bopp yàlla teral nañu nit homme politique bu mel ni nañ jug taxaw ñu jàpp si quoi dañu bàyyi détails yu ñàkk fayda yu nekk ngeen baal ma àq quoi yéen ngeen jëf wa salaatu wa salaamu ala rasulillah